sëñ bi boo seetloo daanaka diine rek moo ko taxoon jóg diine mën nga ne ñetti xaaj saa su nekk moom la ko sëñ bi mos si jàngalee mooy wàllu liimaan wàllu lislaam wàllu lixsaan liimaan bi mu ne moo tolloog tawhid lislaam gi moo tolloog fiq lixsaan gi moo tolloog tasawuf fal jamoo waajun bi laa ko fi la ci teg mu ne dajale ñett yi dafa war ci lu amul benn werante maanaam sa gëm yàlla da fexe mu sell te it boo seetloo diine téere bi ñu ci njëkk jàng li ci ëpp mooy laxdar yi te laxdar yi boo wax demee ca la ngay njëkk a jàng mooy awwalumaa yajibu alal mukallafi mu ne tasxiixu imaan yi li njëkk war am mukallaf mooy nga wéral sa ngëm wéral bi ngay wéral sa ngëm daanaka dafa am lu baree bari lu mu lay jural ëllëg te yow miy dénk réew wala dénk la ab kees wala denk la responsabilité nga gëm yàlla gëm bis xam ne lépp loo fi jëf fii mën ngaa raw tribunalu Dakar mën ngaa raw cassation conseil ne mën naa bañ a xam ci say mbir dara wala nga manipuler leen mais leer na la ne mënoo manipuler suñu borom ndax inna allah laa fa alayhi shay'un fi ardi wala fi sama yàlla dara nëbbul ci moom xam ne lépp te doo ko raw yow ngay yore noonu nguur yow ngay nekkee noonu ministre yow ngay nekke noonu directeur général yow ngay nekkee noonu responsable lu mën a doon mën a nekk la mais jaam bi nga xam ne dafay dund tasawuf dëgg dëgg dëgg xam nga lan lay wut ngërëmal yàlla ay effacé bàkkaar ak su ma moyee yàlla fii su ma demee fii ñu effacel ko loolu pas-pas bu woyof la te sëñ bi jàngal na ko ci Masaalikul Jinaan bii sëñ Tuubaa dane xeetu jaamu yàlla yi bi ci gën a kawe mooy kii jaamu yàlla ngir màggal yàlla kooku sàkkuwul àjjana ragalul sawar waaye dafa xam ne suñu borom ku màgg la mu war ko diggante ma moom mu jaamu ko ba faw nga xam ne bu yàlla diglewul woon sax moom dana jaamu waaye ki gën a néew daraja mooy kii jaamu yàlla xubba sawaab maanaam dafa bëgg yoon maanaam bu yàlla sàkkutoon àjjana pour ñuy jaamu sàkk sawara ngir mbugal ñii mooy moom du jaamu yàlla moom ragal sawara tax muy jaamu ak bëgg àjjana kii moo gën a néew daraja ci jaamu kotu yàlla kii nga xam ne moo tane kooku mooy kiy jaamu yàlla imtisaala sëñ Tuubaa ko wax de maanaam day jëfee ndigal li yàllaa ne bu ñu sàkkee jaamoo tax moo tax moom xoolu àjjana xoolu sawara waaye ndigal li ci suñ borom teg ci alxuraan moo tax moom dundam gépp daa bëgg mu doon jaamu yàlla d'accord la keneen ki gën a kawe na nga xam ne dafay jaamu yàlla ijji laa laa ngir màggal boromam kooku su boobaa maa ngi dégg sànq temps bi jeex na mais maa ngi dégg sànq ngay wax sa euh, sëriñ. Moussa Touré bokkul ak euh, ñi ñuy woowee yàlla yàlla. yàlla yàlla kasa Cheikh Moussa Cissé Ndiamé Daaru. ah yow foofu nga bokk lañ bokk. Ah, lii ñuy wax fan nga xam nga ko jëwriñ Ndiaye sama jëwriñ ñoo bokk daara sang bi Cheikh Moussa Touré moo ñu bokk yar donc mooy tasawuf bii ñuy wax donc nekkul loo xam ne privilège la privilège la naam mais képp ku di jullit sëñ Tuubaa nee na farata la ci yow nga dund tasawuf parce que moo lay dimbali nga mën a laabal sa xol ci lépp loo xam ne sikk la lu waaye am nga yéene ko sëñ Tuubaa daan na wax ne yéene ñëpp jàmm taxul ñu am ko waaye yow duñ ko am donc jàmmi àddina ak àllaaxira bi ñuy wër nekkul ci xaalis nekkul ci matériel ci lan la nekk mi ngi nekk ci nekk en phase avec ton Seigneur maanaam nga méngoog yàlla ci lépp di wax lim gërëm di ko jëf kooku bu ñëwoon suba la yow man xiyam di taxaw looy defaraat ci yow nga tiit di parce que da jubook boroom bi nga xam ne mooy borom kàttan ji amul fu mu yem lii lu ko gën a neex ci kaw suba amul lu ko gën a neex yow ma xiyaamit amul mooy jubóog sa borom te tasawuf lii day dimbalee jaam